waaye loolu lépp taxul taxul taxul nga nekk lay tax nga doon daa doon yaa koy liggéey. waaye dafa am dara aca arbitre xool na leen ba pare ci diggante Tony Junior ak bébé guy gi ndeysaan Tony Junior ngeen boo tund ca ndeer ke sept victoire bébé guy gi Tony Junior am huit combats huit victoire ñoom ñaar kenn déggagul muñal waaw kii waa géej waaye ko indi kii ca ndeer la ngemboo jënde sëtu Ndiaye sëtu Abdourahmane Ndiaye falang la moom Tony Junior arbitre ngay wax ñoom li lamb bañ li lamb nangu Tony Junior bébé guy gi bébé guy gee ngay cat day cat <laughs> ay ee eh, bébé guy gee ngay cat eh, ee ba. guy gee ko indi. guy gee ko indi. Tony guy gi. Ndeysaan. Tony Junior na ay jugeem laaj na leen na ci diggante bébé guy gi ak Tony Junior ñoo ngay léewtoo à waa lii lan la <laughs> waa lii la waa lii <laughs> de moo ñaan keewa ngay léewtoo Tony ñaan <laughs> artiste. lii Leewtoo fil la. waxul waxul ñu noonu lii de. waaw clic Leewtoo en distance. for force daje. arbitre ngay ñoom. waa eh. waa eh. <laughs> eh. <laughs> guy gi. Tony Junior bébé guy gi ndeysaan ay waay waxoo leen woon lii waxuñu woon lii Tony Junior dama maa wax ne ma ami kolle du ma fa yàgg ndax dama war a ñibbi jëndee mbër ni mu waxee guy gi ne dama koy duma dama koy daan Eh, bëre leen du ngeen soq du ngeen marle ma ne ko bëre leen du ngeen soq du ngeen marle. ah waaw baax na man daal fi mu ne nii damaa yaakaar ne làmb bu yàgg léegi nii gars yi dañ koy bëgg a tàmm. dañ koo na bis yoo sa bopp. lii bës na ci bës yi. comme ni nga def rek. <laughs> yëpp yow la ñuy seetaan. Tony Junior Bébé Gouy nañ ba ca wetu saako yooyu lewtoo Tony Tony Junior guy gi Gui ndeysaan ku nekk sa supporter nee na teg Tony Junior Bébé Gouy Gui arbitre nee na bëre leen cokkaas na Tony cokkaasaat na Tony Junior Bébé Gouy Gui ndeysaan mu ngi may fàttaliku bësam ba drapeau chef de l'état waaye bay bébé guy gi eh jël na ko bañ na tuuse na ko tuuse na ko tuuse na eh Tony ay Tony daan na bébé guy gi Tony kaaw ko daan ko laay laa eh kii mooy borom tundu jandeer waxoon naa nee naa la na ko lamb bàyyi xel door ko door palaake sëtu palaake door dóor kaaw mu plaqué dóor plaqué eh, xoolal ma waa tundu jandeer jëlal ma waa tundu jandeer jëlal ma waa tundu guy gi tooni daan na bébé guy gi laa ilaha illallah nee naa la woon combat bii mooy dàq ci combat yi mu ngi doog a dégg mu ngi daj na lu metti lu parce que combat bi ngay dootoo ko fàtte si àdduna. waaye nag laa mel ni mu daan. combat bu métti. moom mu ji moom tamit mu moom bébé moom Tony Junior. ma waa tund sa sumal ma leen. ñii kër mbir lañ jóge Aysatu Abdourahmane Ndiaye falang lañu. hee Tony mu maga ko indi. jam téere ko indi moom Tony Junior.